sigaro gaat me niet gaan. Boy, sigaro, jam me niet fan. Nu iemand, ik, maar ja, oh zo.

yeah ça va bien maa ngi cool. ci loo nekk. naka tey nice. yaa ngi si jàmm. oui oui oui ñu ngi jàmm ñu euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy waa BTV ñoom ñoo ñëwoon euh, daal di lay seet si euh, pour sa préparation li nga xam ne moom mooy jongante bi nga xam ne bokk nga ci mooy taaru rap Galsen te ñu ñëwoon seet si la. pour préparation yi. waa gis nga maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen jaar. Mhm. di kontaan si émission bi di kontaan aussi si teewaay bi nag rafet na quoi. bu leen mhm. neexoon aussi ngeen toog bañ a jàpp si pub

waa du ne dafa may jëlee loo xamante ne kaw la quoi. Mm-hmm. parce que tamit euh, bu fekkoon ne liggéeyuma loo xam ne genre wa wa wa war nañ ma mën a sélectionné foofu. Mm-hmm. su boobaa kenn du ma sélectionné quoi. Mm-hmm. loolu yëpp liggéeyale rek te am na yeneen ak yeneen yu nekk si suñu kanam incha allahu rabi dinañ ko àngu et tout quoi di ñaan yàlla mu yokk affaire yi rek.

boo xoolee depuis le début loolu noonu amul woon. Mm-hmm. am nañu sens su fekkee TRG am na ñu fi jot a jaar am na ñu rab amuñu lii am na ñoo xamante ne du du du talent kese quoi mais dafa am yoo xam ne yàlla moom moo koy def mooy loolu ak liggéey bi ngay def moom moo moom mooy waral yenn opportunité yi di ñëw. Mm-hmm. si sa si sa yoon quoi mooy loolu e ñu ngi waaw liggéey baa ngi si kanam ñoo ngi avancé et tout te des na yeneen ak yeneen incha allahu rabi. zoo ñu ni euh, concept bi li mu li ñu li ñu wax ne moom moo war a am euh, le 23 dañ ni rappeur bu nekk ku njëkk feesle li nga xam ne moom mooy salle bi moom mooy mujjee dóor est-ce que waa Bargny pare nañ pour feesal li nga xam ne moom mooy arena ah waa Zudaala mooy Bargny Bargny mooy Zudaala. Mhm. yaakaar naa ne bu Zudaala pare rek Bargny pare naa. Mhm. mooy loolu parce que commencé nañ ko gis déjà gars yi ñu ngi jënd ticket et tout. lan moo wane ni que ni waa Bargny pare nañ lan moo wane loolu.

invité te département bi yëpp ma man maa ko représenté parce que jëm ñaajo mhm. bari ñu ba tëngëj su daal lañ fi taane et tout te loolu du loo xamante ne sax maanaam daal yëfu yàlla la quoi. Mhm. suñu yoon la rek. Mhm. yaa ma gën a xam. est-ce que Zou pare na sur waaw xam yow yaa gën a xam ne su ma waxee yow rek nga xam ne pare naa su ma pare loolu <laughs> sa kanam gi niru ma ak pare. est pare nga physiquement moralement. Zou pare na avant TRG di ñëw. man pare na si lépp. avant mhm. TRG di ñëw. lépp lu mhm. ñëw si suñu yoon la fekk na pare nañ ko bu yàgg parce que boo nekkee di job di nga xam ne am na yàgg yàgg dina am loo xam ne dina ñëw sa kanam. Mhm. mieux mieux mieux prévenir que guérir quoi. fekk na ñun boo pare nañ bu yàgg. Euh, Zou yow dama bëgg nga jàkkaarloo ak a cam caméraman bi may filmer <laughs> nga wax. rappeurs yi nga xam ne ñoom nga bokkal ak li nga xam ne moom mooy jogante bi parce que yow jëm ñaajo ak baaj nga xam nga soriwul waaw gars yi dañ dox sax lan leen di wax. mu ne gars yi dañuy dox rek. dañuy dox dugg. maa ngi gis gaa yi ñu ngi wax rappeur <laughs> rappeur bu nekk mi ngi wax pour pare pour feesal fii pare pour feesal fële ne la ah. mooy loolu man li ma leen di waxoon rek laa leen di waxaat bu ñu yéexee ñu am fu ñu toog. Mhm. loolu rek laa leen di wax ñu teel a fàggu quoi teel a jóg. Hmm. parce que ñu pare nañ bu yàgg. parce que yéen da ngeen sël mu rek dox du. Hmm, noonu la demee duñ ndékki sax. ah loolu ngeen foog est-ce que amuñu leen fa jiitu lal ay matelas. dañ dañuy dem avant trois jours. avant trois jours. avant trois jours dina na leen ko jaral nañ ko gars yi gis nga ci population Bargny bi que loolu jaral na ah, waaw bu baax a baax a baax mooy li ma la waxoon sànq rek man su ma paree rek gars yi pare nañ zoo mooy Bargny Bargny mooy zoo ah. Mhm. Mhm. mais zoo mu am lu ma jaaxal. zoo sa am fit loolu moom ñëpp xam nañ ko. mais zoo yow est-ce que di nga feeñ ci kanamu Matadi. si kanamu ki nga xam ne moom mooy taal bi. Mhm. authentique est-ce que di di nga feeñ. ah man su ma doon xool question boobu noonu du question de ay affaire yi feeñ sax. Mm-hmm. mais gëm nga genre boo liggéeyee boo liggéeyee ak si lu mu mënti doon waxuma muy rab sax mais ak lu mu mënti doon boo liggéeyee. lu taxaw sa kanam pour pour pour boog nga jëlee ko fa loolu noonu du doon problème waxuma sax jëlee mais genre mënuma taxaw foofu noonu te du du ma feeñ quoi parce que liggéey naa ko. Mhm. si si cadre liggéey la laay waxee man moom lépp lu may dem. Mhm. jox naa ñëpp cër jox naa ñëpp respect mais bu desee lu dul liggéey si kaw wàllu hip hop yéen xam ngeen ma. Mhm. noonu demee. mais ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, population Bargny bi. waaw di wax ñu ñëw jàpp si bu baax a baax rek. nga xam ne seen doom la ñu invité. mooy loolu noon su daal su génnee ak fu mu mënta dem si àdduna du wax feneen fu lu Bargny mhm. kon tey yaakaar naa bu le waa Bargny war nañ mën a génn ñëpp ñëw génn ñu jàpp si affaire yi bu baax a baax a baax laay wax sax mhm. jàpp si bu baax a baax parce que tamit am na yoo xamante ne ni bu ko yàlla defee sa dëkk rek sa waay jàppal mhm. mooy loolu noonu te ñu ngi ñaan ñëpp ñu ñëw jàpp si bu baax a baax a baax bu baax sax Zou léegi dañ lay laaj euh, ku bëgg ci li nga xam ne moom mooy ticket yi ngir mën a dem fekk ji le 23 nan lay def. bien loolu méttiwul xam naa dama koy paas sama grand rek grand Médaouze. mu gën a exprimer gars yi jox joxal ma ma ma daal di wax ak moom. daam nuyu nañ la. naka mu fay nañ la bu ngi lay jëfal bu baax. fii la ëppee ñu bàyyi la nga nuyunte ak mbokku internet yi. donc salaamaaleykum salaamaaleykum gars yi. maa ngi ziar ñëpp di leen jaajëfal di kontaan si yéen waa BTV ak ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy déglu wala ñu ñuy seetaan comme jour ni mu ko waxee ticket yi nga xam ne ku bëgg a dem ci li nga xam ne moom mooy jongante bi. Uh-huh. ana naka lay def pour mën si jot ticket yi. moom yegsi na donc euh, ku si soxlaa rek boo ñëwee fii sama atelier di nga ma fi fekk. Uh-huh. di nga fekk moo kaana. Uh-huh. boo demee si gars yi am na Issa moo euh, nan la tudd moo cargo boo demee Castor aussi am na fa. foofu yëpp daal dañ ko partagé. ku soxla rek boo ote aussi si numéro yi defar nañ ay affice di di di si am quoi. am ngeen tamit ay moyens de transport yu nga xam ne dina leen mën yóbbu. daanaka instant bii ni wax fa dëgg yàlla gars yi ñu si bëri. wax nañ mhm. dinañ dem am nañ yaakaar aussi comme ni mu daan demee fii. Mhm. mais am na ñu siy jàpp mais ba tey jii ñu ngi euh, doole ji ba léegi nii réagir ñu mhm. te ñu ngi woo ñëpp nag muy le maire. waaw da ngay def appel ak ñeneen ak ñeneen dañuy lancer appel. le maire ay Abou Seck mooy ñoom ñëpp ñi fi newoon wax fa dëgg yàlla. ñu kenn su ma limee damay jiw. Mhm. mais terewul am na ñoo xamante ne moom saasu su ne lu mënti am ñoom ñooy ñëkk a réagir. Mhm. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax mais ñu ngi si woo ñëpp ndax mbir mi yëfi Bargny la. Mhm. amul ma sàmba amul ma dem ñun artistes yi ñun ñoom ñëpp la ñu yemale. ku si xewle ñun dañ fay jiitu donc nag bu fekkee ne jour moo xewle na si ñëpp jàpp muy rappeurs yeeg ñëpp. partager publier def lépp du la yàqal dara. parce que kii Bargny lay représenté donc ñun ñëpp war nañ si mën a jàpp. man daal maa ngi lancé appel di woo ñëpp pour ñu jàpp si autorité yi bu ñu mënee jënd billet yi may ko booy sax ñu def ko. Mhm. waxoon nañ nag waa Sénécartour ñoo fi indi ay car. Mhm. mais ba tey man dama nañ nañ fagaru rek. loolu am ñàkk am nañ fagaru maanaam loolu bu amul sax ñun dinañ ut ay oto ñu teg ko fii incha allah war a fagaru parce que stade bi da ngeen ko war a yëngal. non dinañ fagaru yéen c'est di jógee fële di. feesal stade bi yeneen yeneen yeneen gox yi. dañ leen jëndal presque billet yëpp billet yu bëri dañ leen ko jëndal. Mhm. mais ñun amaguñu loolu. Mhm. ay gaañoo si jàpp rek kii jox la dix mille kii quinze mille kii vingt mille. mais ba mhm. léegi nii amaguñu loo xamante ne wax fa dëgg yàlla taxaw na. te billet yaa ngi fii donc mooy lancer appel bi rek gars yi nañ si jàpp Bargny maanaam jàppalante bi daal mbooloo mooy doole te benn loxo du tàccu. kii dañ ko war a jàppale jàppale keneen ak keneen. Mhm. mais comme que moom moo xewle ñun ñëpp nañ si taxaw te yàlla tax. Mhm. waaw kañ ndax liggéey na loo xamante ne wax fa dëgg yàlla moo ko yóbbu fi mu dem. du ne daa toog di xoole nii rek daf ko liggéey. Mhm. donc nit ki boo gisee ne liggéey na war nga ko man a jàppale rawatina mu nekk sa doom. ok waaw. Mhm. dégg ngeen comme daam ni mu ko waxee léegi dama bëgg nga joxal ma ki nga xam ne moom mooy Zou Zou xam nga da ngay joŋante ci. balaa nga yegg dama bëgg nga may ma fii benn freestyle bu gàtt bu ndaw rek. Mm-hmm. ñu mën a xam na Zou si tempo bi wala neew si. waaw yow yaa ngi xam ne maa ngi si tempo léegi loo bëgg. freestyle bu ndaw rek laa bëgg. bu <laughs> ndaw TRG show la acte beneen facette bu bees. ñi bañ mu am ñoom sànku nañ dañ leen a suul si teel. léegi lépp leer na le 23 Dakar Arena la lébu yu pare fépp bari ñi kii fesal stade bi ñun la. takk nañ jaaji taxaw dër njaab ko jubali Arena alma màggi baa mu siif ko defaat lu bégal sa melomaan léegi gars est-ce que pare ngeen et lumière su daala si seenu TRG ku ko tara dina la de cher. dégg ngeen comme ni ko ko mom da nan la parce que ku ko xam-xam ni moom moo teg tànk fi nga xam mom moy mooy bàññi samay wax nak

du yomb. mooy loolu di kontaan ci émission yi bu baax a baax di kontaan ci gars yi teewaay bi ak yooyu noonu yëpp maa gi gis support bi depi le début. Mhm. mooy loolu ñu mel ni daam gars yi ñu ngi siy jàpp quoi. Mhm. du ñoo xamante ne chaque jour da ngay def dara ñu toog di la seetaan. man du ma def dara rap kese laay def na Seydina Mohamed gars yi ñoo ne si ginaa ay Willy Boss gars yi ñoom ñëpp ñoo siy jàpp. Mhm. yàlla xam na loolu noonu di leen encouragé waat ko quoi di leen wax ne affaire bi liggéey te yàgg yàgg dina yéeg fi Fini ñu bëgg mu yegg fa di jaale aussi ñi ñàkk seen bakkan si mbëkk mi di jaale seen famille ak yooyu gaal yi réer yaa na la yàlla saafaraal ba ñu feeñ xam nga ku nekk ñu xam fan nga féete quoi yàlla mën na ko yàlla na def et puis ngi xaar le 23 décembre Dakar Arena dégg ngeen Zou ni mu ko mu ngi xaar le 23 c'est à ne pas rater man maa ngi fa ak keneen ak keneen man lol ñëw yëngal la demee loolu force la boo ñëwul yëngal gars dañ lay jël dañuy ñëw yëngal acca man sa rendez-vous bye bye boo ji garabu cat ñëw bànn. Zouda la. yaa ni ko dama xiif sa MC la ma nar a lekk.